mbokk yi nga xam ñoo baaxoo suivre seen émission waxtaanu koor di daw fii ci sbt média point com ñu dellu si waat di leen nuyu di leen ziara di leen baalu xaq di leen baal xaq ñaan subhanahu wa taala mbokk nu jégal bi jaaki xayril wara muhammad salawatullahi alayhi wa sallama tabarakallahu ñu àndandoo ko ak seen oustaz oustaz Pa Mbeng tabarakallahu tey nag ñu ñëwaat bu di waxtaan ak yéen si waxtaanu koor waaye tabarakallahu ñi nga xam ñoo ñu baaxoo topp nga xam wàccee koor nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ne maa ko farataal ci yéen yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun ayaman maaduda fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uqar nga xam ne subhanahu wa taala moo wax ni man yàlla maa farataal ci yéen woor weeru koor comme ni ma ko farataalee woon ci ji leen fi jiitu woon waaye laallakum tattaquun mu mel ni jóge nañ ci fukki fan yi yu jëkk yi nga xam subhanahu wa taala wax ni rahma la yërmande la nga xam ne yàlla subhanahu wa taala nee na rahmati wasiat kulla shay'in sama yërmande a làmb sama jaam yëpp waaye nag sama jaam yi nga xam a koy sellal ñoo cëpp sens nga xam ne génn nañ ci fukki fan yu jëkk yi tabaarakallaahu teg ci fukki wax ni la tabaarakallaahu nga xam ne subhanahu wa taala na maxfira maay jéggal sama jaam yi dama leen a jege wax yow sallallahu alayhi wa waxal sama xeet bi ne leen jamono bu ñu ma woowee man yàlla subhanahu wa taala ku wi seen woote la waaye duma ci yam dama leen di nangul man subhanahu wa taala nga xam ni génn nañ ci fukki fan yooyu nga xam ni waaye ñu ngi ci fak fukki fan yi nga nag moo mujj fukki fan yi ñu nekk nag nga xam ne subhanahu wa taala dafa wax ni fukki fan yi ñu nekk tabaarakallaahu goreel la ci safara yow jaam bi nga xam ne yaakaar subhanahu wa taala te wóolu tey njortu rafet am njortu gu rafet ni subhanahu wa taala dina la dugal ci yërmandeem ji yaatu ji dugal ci goreel ci safara bii ñu nekk nga xam ne subhanahu wa taala nee na sama jaam ñii ñi nga xam ne ni dañu nekk ci koor waaye seen résultat mooy ragal yàlla waaye fii ñu nekk ci fii ñu toll subhanahu wa taala nee na ci laay goreel sama jaam ñi ci safara yàlla nañu yàlla boole ci jaam ñi nga xam daf leen goreel ci safara waaye ñi nga xam ñoo jiitu itam yàlla yàlla boole leen ci bijaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa sallama nga xam ne yow mi nga xam yaa woor nag dëgg dëgg nag subhanahu wa taala yi nga xam ne moom la gàll sa diggante ak moom mooy nga góorgóorlu ba sa cër yëpp mastatan ilayhi nga daal di góorgóorlu ba lépp loo ci mën sàmm ko ni ñu ko waxee woon noonu lañ koy waxee waat mooy nga góorgóorlu rek fegu ci say cër bi ci jiitu mooy sa làmmiñ yaa ko moom waaye nga góor ba doo ci wax lu ñaaw doo ci wax lu ñaaw waaye doo ko ci jëf waaye nga lu ba jëw moo li mu li ci gën a néew mooy nit romb la rek sol lu gudd nga ni lim sol gudd na nga mucc ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al muslimu man sallima al muslimuuna min lisaanihi di yadihi jullit dëgg dëgg dëgg daal mooy ki nga xam ne jullitu yàlla yépp àndandoo nañ mucc ci loxoom waaye ànd nañ mucc ci làmmiñam jullit daal mooy ki nga xam ne nii jullitu yàlla yépp mucc nañu min lisaanihi ci làmmiñam wa yadihi ak loxoom mu mel ni yow mi nga xam yaa jullit nag nga xam ne dañu la yaakaaree diine nga xam ne tey ñépp bu ñu jugoon ñëw ci yow kuy laaj masala ci yow la jëm képp ko lépp loo jëf mbubu gi ngay mbubuwoo diine wala doon bi nga doon doomu soxna wala nekk ji nga nekk kilifa wala li nga taxawee ci diine wala cër bi la yàlla dénk dina tax ba loo jëf rek ki xamul sax day jàpp ni loolu lu dagan la ba mu jëf ko kon góorgóorlu ba yow li ngay jëf ñi nga xam ne ni ñoo lay bàyyi xel li ngay jëf walla nga koy wax wala nga koy wax ñu koy attewoo ci sariya wala ñu koy attewoo ci diine mu nekk loo xam ni kenn ku ko jëf képp ku ko jëf buñ ko roy day nekk loo xam ne subhanahu wa taala la ci topp kilifa yi la waaye ñenn ci kilifa yi wala ñenn ci waxkat yi wala ñenn ci ñi nga xam dañuy toog ci plateau télé yi waaye léegi-léeg ñu jël lenn loo xam ne sax subhanahu wa taala dafa wax ne ci bëccëgu weeru koor boo ko defee kat sa koor yàqu na ndax may ñu la ko ñu daganal ko ci weeru koor yu demee ni ñu ne nga toog bëccëgu weeru koor ñu ne la sa soxna kat boo ko mënee sori moo gën nga jege ko waaye la dagan guddi kay yaatu na ci yow waaye bu ñu ne ne la sori kay dëgg-dëgg may la ko lépp loo xam ne nii subhaanahu wa taala tere na ko ci léeg-léeg nga rëcc la sax def ko lépp loo xam subhaanahu wa taala def ko xaraamal lég léeg nga rëcc la def ko léeg-léeg sax nga lekk lu xaraam léeg-léeg nga lekk nga lekk dagan léeg-léeg nga juum sax tooñ yàlla te doo ko yëg yàlla ne la weeru koor man yàlla subhaanahu wa taala maa ko wàccee ngir yeetal sama yërmande ci yéen yàlla ne la weeru koor man yàlla subhaanahu wa taala maa ko wàccee ngir njéggal sama jaamu yàlla yi yàlla ne la weeru koor maa ko wàcce sama jaam ñi ngir goreel leen ci safara nga ni yow doomu aadama yow nga xam yaa yaakaar yërmande sunu borom ci weeru koor mënoo góorgóorlu ba yow li nga xam moo la war sa diggante subhanahu wa taala boo mënul def lépp sax nga jéem waaye maal asaf mbokk yi ñu xool tey jaam ñi fan la ñu toll ci seen sàggante ñenn ñi koy sellal kas néew sax léeg-léeg ñu juum ba def loo xam ne sax subhanahu wa taala dañu ni kat yàlla boo yaakaar yërmandeem na nga ciy nekk waaye day fekk nga sellal ko nag waaye nga xool tey ñu toog ci plateau télé yi tey bu yàggul dañ dégg kilifa bu toog ci plateau télé duñ ci tudd tur waaye toog ci plateau télé ne foon sa soxna ci bëccëgu weeru koor dagan na foo ko teg même mu daganee sax yow ngay doomu soxna rus koo wax boo ko rusul wax tamit nga xool li ngay wax boo mënul xool li ngay wax itam nga xool texte bi ñu koy waxee boo mënul xool texte bi ñu koy waxee itam nga xool yow mi koy wax yaay kan man arafa nafsa arafa allah boo nekkee doomu soxna dangay ngay moytu di wax yenn yoo xam ne ni doomu aadama yi dinañ koy bàyyi xel ba léeg-léeg ñu jël ko jàpp dafa dagan fekk lu ñu sib ci weeru koor la waaye lu ñu sib ci bëccëgu weeru koor la boo ko defee sa koor yàqu na yéegoon ni jël bi nga jël sa téléphone sax woo sa coro sa benn coro bu jigéen rek nga woo ko di waxtaan ak moom ba am lu ci yow sa koor yàqu na yégoo loolu mais yàlla subhanahu wa taala dafa ne sa soxna sa seen soxna yi seen tool lañ bay leen leen fu fu leen neex waaye nag dafa ñu la bëccëg weeru koor nag ko muñ mbokk yaral sa bakken bi yow mi nga xam ne yaa woor góorgóorlul ba sa digganteeg subhanahu wa taala te nga yaakaar yërmandeem lépp loo xam ne ni yàlla subhanahu wa taala daganal na ko ci dañ la def ko nga def ko waaye lu lu mu ci sib nag wala ñu ko na ko bàyyi sa cër yi cër yi yaa ko moom waaye jaamu ci yàlla subhanahu wa taala comme alalu yàlla nga yàq cër gi yëpp yow xanaa xamoo ni yow doomu aadama segam nit ni yow ngay neexal boo amee ci moom soxla wala masa yow mi nga xam yaa yaakaar man de sunu borom nga war a neexal jëm ci subhanahu wa taala président Macky Sall mi rek boo amoon yaakaar ci moom di nga ko neexal ak façon boo mën a neexalee ngir lan ngir bëgg sa soxla faju waaw lu tax léegi mënoo ko neexal jëm ci subhanahu wa taala boo amoon soxla ci premier ministre ci benn rendez-vous rek bu la joxoon benn rendez-vous fixé la ko boo moytuwul guddi gi yëpp doo nelaw ngir yaakamtee gisee ak moom te yow chaque jour journée yaa ngi am rendez-vous ak sa borom di ko négliger ñaata rendez-vous nga am ak subhanahu wa taala ci ci bëccëg bi fajar yaa ngi am rendez-vous ak sa borom nga nelaw ba 10 heures doog a yow julli ko te yaa ngi am moom bi ñu ne asalaatu xayru minan nawm waroon na fekk nga yow bu yàgg waajal waxtu bi defoo kon yow ban yitte nga jox sa sa jox ban yitte nga jox sa diggante ak subhanahu wa taala ci nga xam la yàlla gaal sa diggante ak moom nga nelaw ba 10 heures doog nga ne yow jullit nga julit nga kay aha kay waaye xoolal sa digganteeg subhaana wa taala nan nga ko nar a jëfee waaye nan nga nar a jëfee sa diine yaakaar subhaana wa taala yërmandeem ak ci façon bi nga koy defee ak ki nga xam dafa neloo ba tisbaar boo dee fajar ak tisbaar bokk julli am na koo xam ne kooram bu yëpp ay nelaw la ko la ko taxawoo waaye yow nga xam yaa yaakaar subhaana wa taala yi nga xam yàlla dafa ñu la yéekat daf la sib daf dañ ko sib bëgguñu nga def ko ci bëccëgu weeru koor góorgóorlul yooyu nga muñ ko yar sa bakkan ndax subhaanahu wa taala nee na fukki fan yi ñu nekk nii fukki fan la yoo xam ne ci lay goreel jaamam yi ci safara kon bëccëgu wooru koor sopp nañ ci nga góorlu ba sa gémmiñ gi doo ci wax lu ñaaw bëccëgu weeru koor sopp nañ ci ba doo def doo dem ba palaasu caaxaan bëccëgu weeru koor sopp nañ ci ba sa tànk yi doo ko jéggi jëm ci ay caaxaan bëccëgu weeru koor sopp nañ ci yow jaam bi nga jànk ci alquranul karim sopp nañ ci nag nga jàng loo ci mën doyul ndax subhaanahu wa dafa wax ni man yàlla subhaanahu wa taala alquran maa ngi ko wàccee ci weeru koor waaye am na leneen loo xam ne suba subhaanahu wa taala nee na maa ngi ko wàccee ci weeru koor mu inna anzalnaahu fi laylatul xadri inna anzalnaahu fi laylatil xadri wa ma adraaka ma laylatul xadri laylatul xadri xayru min alfi sahri tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matla alfajri subhaanahu wa taala dafa am inna inna anzalnaahu fi laylatul xadri nag inna naka man yàlla ansal naa ko ma wàccee fii laytul xadri laytul xadri guddi gi ñu wax laytul xadri subhanahu wa taala nee na maa ko wàccee laylatul xadri moom guddi googu ñu wax laytul xadri xayru min alfi shahri guddi la goo xam ne moo gën junniy weer tanazzalul malaayikatu yàlla nee na dinaa jël malaaka yi wàccee leen wàccee leen ñu jege bis ni rabbihim ñu teew ci wàcc seen turu ci borom subhanahu wa yàlla nee na moom laylatul xadr guddi goo guddi la goo xam ni jàmm yàlla nee na guddi la goo xam ni lépp loo xam ne ni xéewal la yàlla nee na naa ko naa ko ci wàccee mu nekk jàmm waaye ñeel sama jàmm ñi lépp loo ci jàmm yàlla doyul lépp loo ci ñaan yàlla doyul ndax guddi la goo xam ne mag ñi nee nañu dañ ci wute ñi ne nañ mu ngi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar yi ñi ne mu ngi ci fan ak juróom yi ñii ne am na ñu ne mu ngi ci ñaar fukki fan ak juróom benn bi am ñu ne déedéet am ñu ne boo bëggee am ñu ne guddi fukki fan yu mujj yëpp seet ko ci fukki fan yu mujj yi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax yow nga yaakaar man de sunu borom góorgóorluwul ci weer wii ñu nekk lépp loo ci jàmm yàlla doyul waaye lépp loo ci sellal sa digganteeg subhanahu wa taala doyul waaye yenn yi ñaaw na ci doomu soxna di ko wax doomu soxna bu demee bay atte woo de atte woo ci diine ndax dañu lay roy tabaarakallaahu beneen mi ci des it mooy jàmm bi nga xam ne ni mooy yaakaar yéen man de sunu borom da ngay góorgóorlu ba jëf yi ngay jëf nga xam atte yi yàlla atte ci jëf yi ngay jëf lan la amoo droit jëf benn jëf te xamoo lu yàlla àtte ci jëf gi xataa yaalama xutuma xukuma allaha fiihi yow mi nga xam ne yow subhanahu wa taala dafa ne xam ma ba nga di ma a jaamu ba ma xamul waroo maa jaamu fa in lam yaarifu ni fa kayfa taabudu bëgg na jaam xam ko xam ko yàlla subhanahu wa taala moom moom moo fi nekk te du fi jug waaye yow mi koy jaamu itam war nga xam ki ngay jaamu mooy kan kon yi nga xam yaa xam yaa bëgg a jaamu yàlla subhanahu wa taala yàlla dafa la taarifuni qabla an taabuduni fa in lam yaarifuni fa kayfa taabuduni kon góorgóorlu xam ko ndax dafa ni la balaa nga may jaamu xam ma kon doo ko jaamu ci làmbatu doo ko jaamu ci réer danga koy jaamu ci xam lépp loo xam ne ni itam julli julli yaa ngi koy def góorgóorlu nga xam faratay xam sunna yi xamiñ ci sopp waaye bul jaamu yàlla ci làmbatu mu mel ni yow mi nga xam yaa nekk ci weeru koor yaa xam jigéen la moo xam góor la bu dee yow mi nga xam yaa jigéen góorgóorlu yu bon yi nga doon def ci weeru koor gi góorgóorlu bàyyi ko boo ci génnee lépp loo doon def ci weeru koor nga def tarbiya ci sa jëmm ji bu dee col gu ban gi nga doon sol am na ñenn ñoo xam ne ne dañ ko yiwal bi koor gu ñëwee jël nañ seen yu bon yëpp dañ ci jël yu baax yi génne commencé nañu di sol lu yiw de waaye bi ñu demee ba koor gi commencé di bëgg a jeex la ñu commencé génne seen yu yi di ko sol ndànk-ndànk lu tax parce que dañoo jàpp ne weer bi weer bu ñu war a sellal rek ñoom sellal nañ ci ba fañ mën rek da ci des mooy ñu seen bakkan déedéet ëpp yow mi nga xam yaa ci yaakaar yéen mande suñu borom bi nga góorgóorloo ci weeru koor gi ba sol lu yiw góorgóorlul ci noonu ba boo ci génnee nga góorgóorlu ci ndax yàlla nag dafa ñu la yow doomu aadama bu jigéen bi yow jullit bu jigéen bi sa yaram lépp awra la sa yaram lépp lépp lépp awra la ñaar dong la la may mu génn mooy saxaaru kanam ak sa tenku loxo ak sa tànk yi lu dul loolu awra la ci yow sa kàddu sax yëgoon ni awra la warul jëm ca kaw kon yàlla subhanahu wa taala dafa teral jigéen jigéen dong la yàlla subhanahu wa taala wax garantir aljana du góor jigéen dong la subhanahu wa taala garantir aljana waaye jigéen la yàlla subhanahu wa taala waatee saar di wax ci ñoom yow jigéen xoola valeur bi la yàlla subhanahu wa taala jox xoolal ni la alquran joxe sa valeur xaq yi daje ci yow yëpp yàlla subhanahu wa taala daf la ko jox omar ibnu xatab bi nga xam ne dugg na ci lislaam da daan toog ba ci yàgg mu toogaat ba ci yàgg mu ree saxaaba yi jaaxle ci moom laaj ko yaa Omar ibnu Xataab lan moo tax lan moo waral sa jooy yi Omar ne dama xam ne dama réeroon ñu ne ko la moo waral sa reetaan mu ne dama xam ne damaa réeroon ñu ne ko lu tax mu ne ndax damaa xam ne ma duggatu bi ma duggagul ci diine lislaam damaa jëloon benn yàlla defar ko mu nekk yàlla gato may tukki Omar Omar ibnu Xataab ne de may tukki ma xiif dagg benn loxo bi lekk. demaat ba ci yoon bi mu ne ma xiif daggaat beneen loxo bi lekk Omar ibn Xattaab nee na ma demaat ba ci yoon bi xiif dagg bopp yàlla bi lekk Omar nee na noonu laa téye yàlla ma defar nee na di ko dagg di ko dagg benn par benn ba yàlla bu jeex tàkk ma lekk ko ba mu jeex ma xam ni damaa réeroon ndax li may jaamu du ma ma xam ni kon li may jaamu bu ma xiifee lekk ko ma xam ni kon ndekete damaa réeroon loolu laay reetaan ma xam ne ci neen laa nekkoon. ñu ko Omar kon sa jooy lan moo ko waral mu ne ma damaa xam ni damaa réeroon ndax dañoo toogoon fii ci Màkka ñu ne képp ko doom bu jigéen nanga ko rey ndax doom bu jigéen gàcce la Omar ibnu Xataab nee na yàlla may ma doom bu jigéen nee na doom ji sànn ma dem ba doom ji xaw a dëgër ma ànd ak moom di dox Omar ibnu Xataab nee na may dox ànd ak moom ñu dem ba ci àll bi dem ba ci désert bi nee na may gas mu may gas léeg-léeg sama sikkim taq suuf mu fampal ma ko Omar ibnu Xataab nee na may gas mu may gas gasle bi ma demee ba pax bi xóot nee na ma jël sama doom bu jigéen boobu dugal ci biir ne ma ko dugalee ci biir daal di suul bàyyi ko fa woon ko ginnaaw ñibbi Omar ibn Khattab nee na bàkkaar boobu ma defoon moom lay xalaat sama digganteeg subhanahu wa taala ma jàpp ni yàpp naa ne ma ko moo waral sama jooy ma xam ne damaa réeroon xoolal islam ni mu libéré jigéen l'islam bi mu ñëwee ci la jox jigéen jigéen valeur am ci la wax ne jigéen kenn dootu ko rey xoolal jigéen jamono bu njëkk dañ ko daan jàpp jaam danga daan bëgg seeg jigéen rek dem jënd sa jaam ñëw teg lislaam ñëw goreel leen l'islam ñëw jox leen seen valeur kon lislaam dafa fexe ba valoriser doomu aadama waa dafa faxe ba valoriser jigéen jox ko xaq yi mu moom yépp pour ñu xam ni lislaam dafa valoriser jigéen moom Omar ibnu Xataab loolu topp na ko ndax Màkka dañ amoon yàlla bu ñuy wax laata am yàlla yàlla bu ñuy wax xusa am manaat am xubal ay yaa xeetu yàlla yàlla yoo yoo xam ne dañ ko defaroon di ko jaamu Màkka daa xam daa daanaka ay xërëm lañu ñu daan jaamu. keroog bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee yàlla wàcce saar bu ñu wax qul jaa alxaq qul jaa alxaq wa zaha albatila inna albatila kaana zawoqa keroog bi yàlla wàcce subhanahu wa taala wàccee ni wax ne yonent salaa waa màkk dëgg ñëw na ngir jële la xërëm yi tàmbale di am problème loolu topp na leen ba ci yonent yàlla ismaila alayhi salaam nga yëg ni màkk yàlla yàgg na faa wane ay kéemtaan waaye yàgg na faa def ay karaama waaye waa Màkka dëgër bopp moom sallallahu alayhi wa sallam nga yëg ni yàlla subhanahu wa taala dafa teral xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom xoola yërmande bu tool nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni yërmande gi moo am ci xeetam moo waral yàlla wax ni du ma lakk xeetu xam Muhammad fekk ñu ngi sax ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ñu ngi wax sax ci istixfaar waaye fekk ñu ngi sax ci salaatu ala nabi yàlla nee na sama yërmande di di gën di wàcc ci yéen waaye di yes ci yéen kon yow jigéen góorgóorlu ci weer wi ñu nekk cër yi nga doon weer muy génn ci biti nga dugg ci weeru koor di ko nëbb boo ci génnee nga lu gën ko nëbb ma laaj la marchandise bi nga xam ne kenn xamagu ko waa li nga xam ne kumpa la nga xam ne moo waral nit ki di la bëgg waaw boo ko xasee weer ba ñu ne fàng ci mbedd mi ndax deece na am valeur ci ki nga xam moo ñëw di ko bëgg yow mi nga xam yaay jigéen yàlla teral la góor ñëw di la bëgg si li muy bëgg ci yow lépp da ko ump lenn loo ci weer day gën a wàññi sa valeur waaye loo ci gën di nëpp ndax nit dafa bëgg kumpa kon yàlla da laa teral bañu la nëbbal sa jëmm ji kon am na lu ñu valoriser ci yow loo xam ne bët waru cee tege bu ci bët tegee rek yaa ngi wàññi sa valeur te yëgoo ko jigéen dong la yàlla subhaanahu wa taala garanti loolu waaye jigéen moo mën a waat ni fi muy sëy mën na cee jur doomu wàllu yu yàlla nangul ko ko jigéen moo mën a waat ni naa jur doom ju baax yàlla may ko ko ndax yàlla nee na maa jël jigéen def ko muy sama magasin man yàlla maa jël jigéen def fa sama magasin waaye def sama secret ci moom doomu aadama di sosoo ci moom kon ku yàlla def magasin ci biiram di sosol ci moom di jëlee ci moom di génnee ci moom kon moom bu waatee ni mën naa jur doom ju baax yàlla mën na ko nangul kon yow mi nga xam yaay jigéen góor góorgóorlul ci jëf ju baax waaye góor góorgóorlu ci fonk julli góorgóorlu ci jàng alxuraanul karim waaye góorgóorlu ci yar ca yar sa làmmiñ góorgóorlul si yar sa làmmiñ sa diggante ak doomu aadama yi waaye rawatina sa diggante ak sa mbokk yi la yàlla booleel muy say mbokk jullit bàyyi tongo bàyyi jëw bàyyi tas kër waaye buñ ñee tas kër nag ngeen baal ma xaq sunu mbokk jigéen yi góor sax mën a tas këram kilifa ci kër sax bu dul diisoo ni alxuraani war amrum suwaraa baynahum boo nekkee ci kër doon kilifa da ngay diisoo ak sa njaboot ndax sa responsabilité lañ boo ko dul def yàlla mën naa ñëw ñu ñu nekk ñu ñu tàqalikoo kenn ku ci nekk mën na jàppal moroomam dara wala buñ tàqalikoo ci biir kër kenn ku nekk mën na jàppal moroomam dara kon kër dañ koy diisoo dañ koy péncoo kon yow mi nga xam yaa nekk ci kër gi doon soxna góorgóorlu sa digganteeg doomu aadama yi bu dee xaq bu dox sa digganteeg ñoom nga baalu xaq góorgóorlul ba xàq bu la sa doom bu sa mbokku jullit amee woon sa digganteeg moom demal ba tamit nga ne ko baal ma xàq mu ne la baal naa la yow doom yow mi nga xam yaa nekk jigéen góorgóorlu xàq yi dox sa digganteeg doomu aadama yi nga xam ñoom la yàlla booleel nga jaamu ci ñoom yàlla bàyyi jëw yow mi daan njaaloo weeru koor ñëw nga ne bàyyi naa ko yaa xam na nga daan jaay sa bopp wala da daan sax jaa jaawe sa bopp de waaye daan daan nga jékki-jékki sax njaaloo te doo ko yëg ndax sa bakken góorgóorlu nga bàyyi ko waa weer wi ñu nekk góorgóoru nga ba defa ko defa too ko ci nga góoru ne yàlla kat lu xaraam lii moo doon dundee bëggatuma ko dundee dama daan xiif léeg-léeg ma dem ba mujj bi ma dem jaay sama bopp wala ma dem njaaloo topp sama bakkan yàlla kat damaa góorgóorlu ba bëgg koo bàyyi dugg ci weeru koor maa ngi lay ñaan yàlla yàlla nag ma defal lii ma nekk ci sutura sutura gi ma nekk ba bàyyi ko koor gi yépp defuma ko yàlla nag ma ci saxal ba su ma ci génnee ma doot ma ko defati insha allahu taala boo ci saxee yàlla dina la tàqale ak moom yàlla subhanahu wa taala li mu ko ñaan la lay may waaye kasaalika yow ku góor ki njaaloo ñaar nit a koy def du benn nit ki lal taabalam di jaay bu gisuloon kum jaay du lal kon ki lal di jaay dafa gis ku muy jaay kon yow mi nga xam ne yaa nekk muskalaf bu góor góorgóorlu yor sa bakkan lu bon ñaar a koy def ndax kenn du ko def waaye yow mi nga xam ne nii yaa ngi yor sa yor sa tànk fépp bépp place bu bon boo yëg nga dem fa. fépp foo xam dañu fay njaaloo nga nekk fa fu ñuy tasee yaakaar nga nekk fa fu ñu dogee mbokk nga nekk fa yaa xam na ngay sàcc. dugg nañ ci weeru koor góorgóorlu nga ba bàyyi ko nga la bàyyi ko gënul tas yaakaar baaxul yaa xam da ngay njaaloo dugg nañ ci weeru koor góorgóorlu nga bàyyi ko tas yaakaar baaxul yaa xam da nga da nga nekk nit koo xam ne na nga nekkoon loo xam ne lu xaraam la lewul dugg nañ ci weeru koor góorgóorlu nga bàyyi ko subhanahu wa taala dafa ni fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala sarratin xayran sarran yara kon doomu aadama day góorgóorlu jëf lu baax tabaarakallaa waaye rawatina ci weer wi ñu nekk di weeru koor nga xam ne fukki fan yi ñu nekk mooy fukki fan yi nga xam ne subhaana wa taala ne na njéggal la yàlla goreel la ci safara yal na nu yàlla boole ci sama jaam yi fukki fan yu mujj ci laa leen goreel ci safara yal nañu ci yàlla boole bi jaahi rasulillahi salawatullahi alayhi wa sallama mbokk yi ah, ñu topp fii ci seen télévision sbt media point com tabarakallahu àndandoo ko ak seen xarit seen mbokk oustaz Pape Mbeng naafale bi nga xam ne ne moom la ñu indi tey insha allahu taala àndandoo ko ak yéen insha allahu taala da def euh, juróom benni rakk insha allah juróom benni rakk yi nag mbokk yi nii la tëddee rakk bu ci nekk da ngay def iza a nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba moom ngay def juróom ñaari yoon incha allahu taala nga def ko ba mu mat juróom benn rakka incha allahu taala nga ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal la ubbeeku defal la yëkkatiku defal la faju a zahiran wa baatinan waaye yàlla def ci réew mi jàmm mu def ko ci euh, tabaarakallaahu kër yëpp waaye tabaarakallaahu yàlla na yàlla def fi jàmm feer bi ñu wax coronavirus yàlla na ko fi yàlla jële incha allahu taala aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum salaamun min allahi aleykum wa rahmatun minhu taala wa barakatuhu